niveau de militants responsables de parti il a quand même beaucoup fait pour ces euh, militants de la diaspora ça nous mo témoigner honnêtement très bien ay ministres ay ambassadeurs itinérants ay consuls ay directeurs etc franchement il a tout il a

moom ci boppam dama xamul ñun luñ ko def ba mu daw man man vraiment bëgg naa ko xam yaa ngi dégg ñu def lee ministre de la diaspora ngay daw diaspora bi la man j'interpelle Macky Sall mu interpellé ko laaj ko lu tax mënut a gis diaspora bi kooku moy benn beneen bi mooy les responsables de l'APR fii mais dañ fe liggéeyul loo xam ne ne mën nañ koo gagné c'est ça la vérité te sénégalais yi fii kenn sexelul kenn fifty parce que fii ku ne yaa ngi sa dignité su wax na ko léegi. yaa dégg donc li ñu soxla mooy ku leen respecté ki leen jox cër ki leen jox seen gëdd yaa dégg kooku la ñu respecté et malheureusement Macky Sall ñi mu jox responsabilité ma di ko waxaat fii kenn du leen gis kenn musu leen a gis dañuy daw nit ñi comme pas possible yaa dégg man sax léeg-léeg ma dajeeg ñoom ci avion yi après man leen mais mais ça va mais qu'est-ce qui se passe nga ne ma non yéen da ngeen a garaaw parce que ku fa ñëw da nga ko man leen ma ne ko mais non yéen da ngeen a fal pour ngeen ñëw wax ak ñoom. Eh, dégg mais pratiquement daanaka dañuy daw la preuve mais secrétaire d'État Moïse Sarr musul musul dem Amérique ba dajale sénégalais yi fa nekk musul ñëw France ba dajale sénégalais yi fa nekk musul dem Italie ba dajale fa sénégalais yi mais moi je pense qu'il a il a une fois tenu une rencontre ici avec des sénégalais. non non non une rencontre avec ses amis c'est ça la vérité avec ses amis mais boo dajee sénégalais au moins quand même xanaa. Euh, rencontre ba presse bi war na cee mën a génn am luñ ci wax yu demee noonu ñu tas ko ñu xam lu fa lu fa mais mais dara amul man waxuma ko pour critiquer ko non c'est que le problème mooy moom du moom rek d'ailleurs d'ailleurs il n'est pas le seul moom poste bi bi mu ko yoree ba léegi Moussa dajeeg Sénégalais yi Souleymane Jules Diop bi mu yoree poste bi Moussa dajeeg Sénégalais yi euh, la femme Touré euh, Moussa dajeeg Sénégalais Seynabou Touré Seynabou Touré te ñooñu ñëpp ci parti APR la ñu bokk parti Macky Sall Macky vraiment jox na leen Macky tàggoon na ak ñoom bu Macky ñàkkee je le dis haut et fort, Macky en France. en gros, ici, euh, tu veux dire que APR bu ñaké France, c'est moins la politique de Macky la ni ñi di condamner que le comportement de ses responsables. C'est le comportement de ses responsables parce que ces responsables ñoo wara communiqué communiquer avec la diaspora mais communiquer wu do doo gis déjeuner de presse am do gis dîner de presse am do gis rencontre avec la diaspora do gis rencontre avec les associations rien du tout. Mais Demba Sow moom dafa newoon il allait organiser des rencontres avec la diaspora non. mais xam nga d'ailleurs sax dama lay laaj ani Demba on ne voit plus ken ki gisuñu ken c'est mon ami d'ailleurs et d'ailleurs que je salue au passage parce que dañuy waxtaan man ak mom te dina ko témoigner aussi nit ku bax la en dehors de ça wax dëgg yalla nit ku dafa amul moyen les moyens ça il faut le reconnaître waxtaan nañ nee mom moom man amuma les moyens de ma politique bon kooku nag Macky ak wa APR les sénégalais de France li ñu gis franchement gis ko tek ci suñu ce moy kenn a kenn kenn légui nak nit ki sa carte mère carte bi nous vraiment du euh, ki ko avons ki la ki ki mais si euh, au moins euh, ñëpp xam nañu fii euh, passeport di nga am en clin d'œil boo boo déposé euh, cherul aussi pratiquement beaucoup comparé ak les autres pays en tout cas il a il a beaucoup fait Covid Covid ils ont donné beaucoup d'argent non non moom wax naa la ko mm. président Macky Sall def na li mu a def ak nitam les responsables de son parti maintenant est-ce que les responsables de son parti qui devait être en relation avec la diaspora est-ce que defuñu seen liggéey Défendu c'est liggéey Défendu c'est parce que la réalité du question passeport du question pièce d'identité ou autre chose parce que à l'ère du numérique maintenant en une fraction de seconde on peut établir des trucs machin Deux mot sax dugg ci détails c'est pour moi, c'est des détails pour un gouvernement sérieux Vous dégg waroon nañu dépassé cadre boobu li ñu le mooy maanaam ñuy discuter di waxtaan di échanger Vous dégg loolu moom moo ñu mën a par exemple sur le plan des retraites des retraites ici en France yaa ngi dégg ñu mën ci discuter ak suñu ministre de tutelle ministre de tutelle bi discuter avec l'ambassadeur et les consuls et cetera mais yooyu amul sur par exemple les sénégalais yi ñuy sur les sénégalais yi dans les prisons sur par exemple euh, difficulté yi nga xam sénégalais yi am nañ ko Souleymane Jules Diop pourtant mi ngi UNESCO moom mënoon na créer par exemple des rencontres comme nous mu créer la rencontre nous mu créer avec bu avec xaw ma lan jeune Bougar je l'ai vu entre quatre murs avec ses amis. C'est pas sérieux. Pourtant, Maki lui a donné un plein pouvoir. Pourquoi nous créer de ces rencontres-là Nous nous nous échanger, nous C'est vrai que nous, Mansa Mousna, Mousna parce que la délégation sénégalaise Bounek UNESCO, jusqu'à présent, sommes Won Sénégalais, utilité délégation Bobo, on ne sait pas honnêtement, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas, mais mais kenn xamul lan mooy seen liggéey kenn xamul ko. au président de la République de tirer les enseignements de cela man conseil boobu laay jox sama président de la République parce que tamit mooy suma président mooy su mooy président du Sénégal. Hmm. maintenant maintenant. Hmm. Euh, li ma ci mën mooy en tout cas li nga liggéey rek rek lañ